quartier général bi waxtaanee li nga xam ne noonu lañ tëralee suñu programme ñu jógee léegi ci ay doxantu ci biir dëkk bi seeti jigéen ñi ak xale yi tuddee ko sargal femme ak sargal jën yi euh, bi ñu demee ba ñëw nag ñu ñëw fii toog ñun ñu ko seq ñëpp gis ngeen image wax dëgg yàlla duma ma lim waaye comité électoral bu ràññeeku la ndax jigéen yu am solo ñoo nekk ci biir xale yu ñu ràññee ci fii ci Daara également ñoo nekk ci biir ay kilifa également nekk ci biir ak ay corporation yu bari muy commerçant yi muy sommes yi muy daayira yi ñu bi di di pour que buñ demee le 24 février au soir comité électoral bu Daaru Khoudoss jël premier ci comité yi waa Daaru Khoudoss jëpp wateel le président Macky Sall ba ñu mën a am plus de 80 pour cent fii ci Touba yëpp loolu nag ñu ci sant yàlla bu baax ndax biñ ko tàmbalee am nañ ci suñu ñaanu kilifa muy sëñ Ahmadou Mokhtar mi nga xam ne mooy xalifa Daaru Khoudoss ñu ànd suñu sëriñ suñu kilifa Serigne Cheikh Abdou gaynde Gaïndé di président d'honneur du comité bi dem ci moom dénk ko suñu loxo mu ñaanal ñu euh, jam ñu euh, tey jii ñu defe naa niñ ko séqal ñépp wax naa ko léegi ñu ngi fii toog ak ñi ci dolleeku ñëpp tey jii am na ñoo xam ne ñu ngi woon ci yeneen parti ñëpp bàyyi nañ ñëw fii ñuy nekk sama càmmoñ di Cheikh Gueye kenn ku ne xam na ci ab Ablaye Niane docteur Ablaye Niane ci la nekkoon ci coalition Sonko 2019 waaye tey jii moom ak ñi mu àndaloon ñëpp bàyyi nañ ñëw ànd ak Serigne Cheikh Abdou Lahad Gaïndé Fatma ànd ci comité électoral bu Darou Khoudoss ca sama mbok suñu xarit le directeur di Crous de Bambey Cheikh Abdoulo nekk président bi ñi ci topp ñëpp.

ni euh, ñu tëralee suñu liggéey nag mooy bi ñu tàmbalee dañoo dem ci kilifa gi sàkk ci ñaan laaj ko ci ndigal mu jox ñu ko ñaanal bi ñu jógee ci loolu ñu dem ci kilifa yu bari ci Daaru Xudoos dem ci ñoom sàkku fa ñaan wax leen li nga xam ne moom lañ bëgg ñu ñaanal ci mooy falaat le président Macky Sall président de tous les Sénégalais le candidat le plus sûr ndax juróom-ñaari at yi ñu génn xam ngeen ne président Macky Sall def na ci réew mi lu bare baree baree bare. ci nga xamante ne tey mooy daral yii ak marché bu Mbàkke ak yeneen gox ci biir dëkk bi ay ay ay ay daara ak yeneen ak yeneen euh, ñi ngi fay tabax euh, ay toilettes yoo xamante ne daral gi rek def nañ ci douche yoo xamante ne normalement fi mu toll nii ci carreau lay toll wala peinture loolu askan wi war a xam ne euh, président de la république wala fondation Servir le Sénégal ma Faye Sall. Euh, social yooyu muy def yooyu mi ngi ci biir dëkk bi am na ci daara yoo xamante ne tey euh, dañu manqué woon fu xale yi nekk loolu ñi koy defar am na ci daara yu jot a pare yaakaar bii Bousso bi dëkk ci biir kër sëñ Touba bi euh, te jiite daara yi kooku jot nañoo gisee ba mbir mi yëpp ci ay loxoom lañ ko teg bokkoon na ci ñu ko doon dox ak yu mel ne yooyu askan wi daf ko war a xam parce que lu am solo la loo xamante ni sii ñañ ko defal ñoom xam nañ fi ko def man mi koy wax xam naa fañ ko def euh, loolu daal laa ne woon nañ ko ci danaa ko ci dolli euh, route bi ñu doon wax itam naan euh, yoon yi ñu tabax yaakaar naa wax naa ko bu yàggul ci benn rajo boo demee jànnatu da ko fekk route boo xamante ne ñu di ko wax boobu pare na jamono yi ma koy wax dañ doon wax xëy na kii day campagne wala day demee noonu mais léegi li olof di wax weddi gis bokku ci loolu gisees na ko kon ñun bi suñu dabaar mooy ñu wax yu mel noonu yu mel noonu it ñu ngi ñu ngi ci dox parce que social la te askan wi soxla nañ ko te ñoom itam damaa gëm ne buñ xamee fi ñu koy def ak fañ ko war a def danañ ko def loolu daal laa ne woon danaa leen ko àggee. sant macha allah ñu gis nañu ko ñun sant yi gëm nañu ko kon yàlla na ko yàlla defal ndam ba ñu gën ko mën a utiliser jàmm ak salaam ci barke Sëriñ Tuubaa ah lu ñuy wax bu formation jàllee lu wax ci couverture maladie universelle bi na ñëpp uti ay loolu yor seen ay carte

jàppale suñu ay jigéen jàppale suñu ay GP yi ànd ak ñoom organisé wu dëgg yàlla ba le 24 mars incha allah fii ci Daara Koubos moom mention spéciale man de maa ngi ciy santaat yàlla bu baax ndax bés bu suuf benn chamaillement kenn ku ñëw kenn def dara ku am sa woon bi sa bëri la moom solo ko baalu ak même si suba premier heure ñu ànd ak jigéen kon loolu fii ci organisation Daara Koubos dama defe nag loolu sëriñ bi la parce que Daara Koubos ku ne xam ne fii la lépp départ. xamal leen li ngeen xam ne moom mooy ki gën ci ñoom. te fi ni gis lañ ne président Macky Sall mom moo gën ci ñoom parce que daf leen jox ndekki ci dig leen añ donc ku la jox ndekki dig la añ incha allah boo teeloo jàppale ko ci li mu bëgg dina la ko jox parce que tamit créé wul ay coalition yo xamné ay coalition de boobu à retardement la parce que gis na fi ay coalition yo xamné bu ñu juumee ba jox leen réew mi mbirum pàccoo lay ko xëccal parce que coalition contre nature amna am na yeneen yoo xam tamit ñun Sénégal suñu ce suñu pas-pas dafa am ñu gëm pays de dialogue Sénégal ay venu, ñoo confrères qui ñoo Qu'est-ce que nous avons vous savez ko jox suñu par rapport la réalité yi nga depuis des centaines d'années Sénégal n'a la doon dundee ba léegi moo euh, euh, le président Macky Sall li nga xam wax muy lu leer muy loo xam ne mënees na cee teg loxo te coordinateur Modou wax ko léegi sëñ Fallou Ndiaye am lu mu tuuti léegi ci wàllu social loolu béy na firnde béy na bilan ndax boo xam ne yaa ngi xool chaque jour yaa ngi koy gis. mu jàppale nag war nañoo jàppale président Macky Sall parce que suñu bopp la ñuy jàppale ndax koo xam ne si ne day ji boo masaan taxaw ci boutique bi jënd saako ceeb yaa ngi koy jënd 18 000 tey soo amee 13000 francs am koo xam ne day masaan taxaw ci boutique bi tey boo amee 600 francs am koo xam ne si ne ñun ay jigéen lañ gaz ñu ko daan jëndee 4900 tey ku am 3000 francs am gaz ñun ay jigéen lañ danga daan yor sa doom mu xiibon doo ko ñemee yóbbu hôpital parce que soo demee da ngay dagg ticket jënd ordonnance président Macky Sall bi ñu gunge ci loolu bi ñu gunge ci loolu da am sa doom tey nga yóbbu ko boo demee doo dagg ticket mu koy gunge ci juróomi ak yooyu moo noon ne bu ma amee ba fer dinaa ko bàyyi yaayam mun a déedéet damay defar bourse familiale di ko gunge ba xale bi 18 ans yi am président Macky Sall di ko jàppale ñu wax lu am importance sànq yi wax ko ci côté santé tey ji képp koo xam ne si ne da nga masoon tollu fenn di jigéenu wéru soo demee hôpital ñu ne dañ lay césarienne problème ngay am sa jëkkër dafay teggalu nat ku la war a xamal dina la xam président Macky Sall xam ne dafa fonk jigéen xam ne jigéen kenn warul xaawi sutural mu def mu def césarienne ah. heure bu amee 7 mois soo demee hôpital ñu defal la opération gratuite ku ne xam na ni secteur de santé bi amoon na problème parce que opération dañ ko daan jéggaani bu ñu ma sànni opéré Dakar ngay ñam parce que problème mu oxygène lañ amoon bi nga xam ne mooy man alimenté malade bi bañ mën koo opéré tey président Macky Sall def loolu. ku na xam ne ni feebar mooy loolu borom ci côté dialyse bi président Abdoulaye Wade président Abdou def ko 200000 par séance président Abdoulaye Wade ñu def ko déedéet dama koy ñoo def gratuit kon loolu sant yàlla